alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala rasulina wastafa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi man istafa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nuxayikum bi taxiyati lislam taxiyatun awaluha assalaam wa wasatuha arrahma wa axiruha baraka taxiyatu ahlu aljanna fi aljanna ala wahiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi di Kibaroo network di seen site internet seen mbokk imam Zeynul Abidin Gueye di doom ci imam Ali Badara Gueye fii ci Karang tabarakallah ñuy ànd ak yéen ci émission yi nga xam ne dañuy baaxoo di leen di ànd ak yéen tey nag mu mel ni ñu ngi ànd ak yéen di Kibaroo network ci néegub sëy bi nga xam ne moom lañ doon waxtaan ak yéen ci mercredi bu jot mooy àllarba bu jot tabarakallah eh, di ziara Pape Mané mi nga xam ne moom mooy boroom di Kibaru network tabarakallah di nuyu soxnaam soxna Camara macha allah di nuyu euh, ñi nga xam ne ñooy topp di Kibaru network fii ci Kaarang tabarakallah fii ci Gambi ak euh, ci Casamance tabarakallah euh, ci dakaar ci Mbuur ci Kaolack ak ci diaspora bi yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ñoo ngi leen di ziara di leen nuyu mu mel ni tey dañoo war a waxtaanee li jëm ci wàllu néegu sëy néegu sëy nag buñ ko waxee muy àq yi nga xam ne moo am ci ñaar ñi nga xam ne ñooy bokk di sëy muy góor muy jigéen tabaarakallah borom bi tabaaraka wa dafa wax ne na hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna baat boobu nag moom lu tax ñu di ko bàyyi wat loo xel nit ñi mooy kenn ku ci nekk dafay am yitte ci moroomam kenn ku ci nekk day am soxla ci moroomam ki ngay am soxla ci moom nag war nga ko jox orma ki nga xam ne dafay am soxla ci yow war na laa jox orma orma ji nag soxla ci duhut bokk fanaan rek kenn ku ci nekk am lu mu siq ak moromam déedéet mooy kenn ku ci nekk dafay am soxla ci moromam ci ay besoin am mooy ci ay bëgg-bëggam eh, yi nga xam ne daf koy faje ay soxlaam jëkkër moo xam jëkkër la moo xam jabar la eh, ci togg gi jigéen dafay taxaw ci togg góor dafay am soxla ci lekk jigéen war a taxaw ci loolu kon góor bu mu jàpp rek ne jigéen pour lal la wala pour euh, néeg la rek déedéet euh, dafay am soxla ci moom ci togg mu togg ñu lekk kon na xam ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun la hunna dafa yaatu tabaarakallah ku góor itam day ku jigéen itam day am soxla ci góor moo xam lu mu bëgg euh, jënd la moo xam lu bëgg sol moo xam lu bëgg lu bëgg rek kon loolu na xam ne góor gi moom daf ci am day am soxla ci moom moom moom moom ku jigéen ki kon bu mu jàpp rek ne soxla si moom ci néeg bi rek la déedéet kon hunna libaasun lakum wa antum la lahunna kon yéen ñu ne eh, koddaayu jigéen ñi jigéen ñi tam ñooy koddaayu góor ñi tabaarakallah kon dañuy amaat eh, sunu thème mercredi mooy thème mu àllarba bi di waxtaane ci néegu sëy borom bi tabaaraka wa taala dafa wax ne ar rijalu xawaamuuna ala nisa mu ne góor ñi ñoo supérieur jigéen ñi góor ñi ñoo supérieur jigéen ñi mooy góor ñi ñoo yilif jigéen ñi ñoo leen ëpp doole ëpp doole gi nag du ci xuwa bu tax ñuy wax mooy du kàttanu jëmm moo tax ñuy wax naam kàttanu jëmm góor moo ëpp doole ci yenn côté yi tabaarakallah waaye nag euh, kàttan bi ñuy wax mooy góor moo war a ëpp xel jigéen ci doxalin ci waxin ci comportement ci xel kon euh, di Kibaru network tabaarakallah mbokk yi nga xam ne ñun ñuy seetaan nekk fii ba dakaar Eh, di ñu bàyyi xel mbokku taalibe yi ñu ngi leen di ziar di am mbégte borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne eh, yéen ñëpp ngeen xam ne góor ak jigéen man ma leen bind inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa eh, man ma bind góor bind jigéen wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu mu ne ma def ci góor ak jigéen njaboot ay xeet ngir nañu xamante waaye li ci ëpp solo inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen ki gën a màgg ci mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen kon tabaarakallah yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne ki nga xam ne mooy tànneef ci mooy ki gën a nekk tànneef ci jigéen ñi mooy ki nga xam ne moo gën a am yërmande ci jigéen yonent bi sallallahu wax na ne bu fekkee góor dafa yor jigéen na ko amal yér yërmande ndax yér yërmande ci góor lañ koy séntu ndax góor moo ëpp doole jigéen kon euh, nañu xam ne ñaar ñu nekk ci biir néegu sëy di sëy kenn ku ci nekk dafa am àq ci moroomam moo tax ñu tuddee ko néegu sëy góor dafay soxla jigéen pour noppalu jigéen bi bañ yonent bi nag sallallahu alayhi wa wax na ne ida daa rajulu imraatuhu ala firaasihi mu ne bu yonent yonent bi nee na bu fekkee góor dafa oo soxnaam ci kaw lalam eh, maanaam am soxla ci moom jigéen bi tere jëkkëram boppam malaayka yi dañ koy rëbb laanatuhu llaahu yàlla da koy rëbb wal malaayikatu ak malaayka yàlla rëbb na ko ak ay malaaka kooku nag lu diis la mooy tere jigéen gi muy tere boppam donte na day am ci ñaari côté yëpp nag waaye naam bariwut ci góor ñoo xam ne dañuy tere seeni soxna seen bopp kon ki nga xam ne dafay tere jëkkëram boppam yàlla da rëbb na ko wala mu gàddaay boroom këram dem nekk ci boppam yàlla rëbb na ko ay malaakam te rëbb gi nag mu ne ci guddi gi lay commencé ba ba ñuy xëyee mu ne maa tax mu ne moo tax mu ne maa min yow min amul benn bis yusbihul abdu jàmm bi dana xëy fii ci moom illaa malakaan ndere malaaka yandul dana wàcc wa yaqul lahuma ñuy wax ñoom ñaar allahumma axfir yow yàlla yal na nga jéggal allahumma axfir yow na nga jéggal kon bu fekkee ñoom ñaar ñëpp ñu ngi sëy kenn ku ci nekk di sëy ak moromam ci bëggeel di sëy ak moromam ci cofeel lu dul ñoom ñaar sëy bi nga xam ne moom lañ sëy ba kenn ku ci nekk yëg boppam malaaka yàlla danay yebal ñaari malaaka yoo xam ne dañuy jéggalu ñaari jaam yooyu kon sëy jaamu yàlla gu rëy la kon sëy jaamu yàlla gu rëy la yan yàlla gën ñoo dimbale te dëppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sëy kon lu am solo rek mooy góor dafa war a xool jigéen xool ko am kontante ci moom jigéen tam dafa war a xool góor xool ko am kontante ci moom kon ñoom ñaan ñëpp kenn ku ci nekk war naa def àq war naa jouer rôle bi nga xam ne moo war ci moom ba tax eh, moroomam du am benn eh, lu lu lu koy naqadi ci moom kon lu am solo rek mooy nañ bàyyi xel ne jigéen du xool jëkkëram lu dut mu bég ci lu dut yàlla dana bindal jëkkër ji tiyaabo jëkkër itam jabar du ko xool lu dut mu bég ca lu dut yàlla dana ko bindal tiyaabo kon li am solo mooy yàlla du xool jëm ci benn jaam ndere du xool jëm ci maanaam du xool jëm ci jigéen du xool jëm ci góor góor du xool jëm ci jigéen te itam du sant mukk moom góor wala du sant mukk moom jigéen moo xam mu jëm ci jëkkër wala moo xam mu jëm jabar lu yàlla dana ko bindal tiyaabo mooy ñaar bu la sa jëkkër defalee teraanga nga gis teraanga ji sant ko sant nga yàlla bu la sa jabar defalee teraanga nga gis teraanga ji sant ko sant nga yàlla te sant yàlla gi gën a rëy mooy sant yàlla goo xam ne dafa jógee ci xol dem ci xol te jëkkër jabar seen ak sant daanaka dafa gën a dëgëree ci mu jógee ci xol jëm ci xol moo tax li am solo mooy sant gi jàmbi di sant moromam jaamam moo gën a diis ndax léeg-léeg nit ki nga defal ko teraanga te di gis ne yaa ngi koy defal teraanga loolu dafa métti ci xol moo tax borom bi ne sant gi jaam bi di sant moromam jaamam dafay dellu ci waat ci man te lépp loo xam ne dellu ci waat na ci man rek sant googu dañ koy ful dañ koy def muy tiyaabo dañ koy def muy farug bàkkaar kon li ëpp solo iza daa rajulun bu waa ji wootee imraatu soxnaam ila firaasi jëm ci lolam fal yaatihi na ñëw jigéen bu ko soxla borom këram soxlaa na ñëw bu mu bañ waaye sa borom kër bu la soxlaa nga di ko santage di ñaan loo xam ne wóor na la ne amul ko wala mu ko am sax waaye danga jàpp ne balaa may séq ak moom moom lii dinaa ko laaj moom defal ma ko ma doog a nangu pour séq moom bàyyil xel ne yaa ngi làq merum yàlla ak merum malaaka yi kon jëkkër jooju bu fanaanooy ak mer fa taabaa nga bañ xadbaanan mbir moom muy aji mer alayha ci moom laanatullahu yàlla dana ko rëbbu wal malaayikatu ma al malaaka yi xataa tusbax ba mu xëy kon ki nga xam ne dafa tere jëkkëram boppam jëkkëram fanaanoo mer ba bër set na xam ne yàlla rëbb na ko ak ay malaakaam bu jigéen euh, bu góor teree soxnaam boppam soxna soosu fanaanoo mer na xam ne yàlla rëbb na ko ak ay malaakaam ba mu xëy yenent bi neewoon na wala tuzi imraatuka bul lor sa soxna ndax soxna du jaam buñ la jox pour nga war koo sonal na nga xam ne sa alal la joo xam ne teranga la joo xam ne worma la joo xam ne danga ko war a fonk moo tax yenent bi ne jigéen mooy àdduna ndax ci la àdduna di taxawee kon li ëpp solo mooy nit ki dafa war a bàyyi xel ne su ma ànd ak nit ki ñuy jaamu yàlla moo xam ku mën a doon rek ndax sëy gi ñu waxoon nañu ci émission passée na sëy bi jaamu yàlla la su ànd ak nit ki di jaamu yàlla nag da naa war a bàyyi wante xel yéen ñaar muy sëriñ bi ak taalibe bi muy taalibe ak sëriñam muy mag ak rakk muy wayjur ak doom muy ñaari wayjur yi muy borom kër ak soxnaam ñoom ñaan ñëpp dañoo war a bàyyiwante xel ne dañoo ànd di jaamu yàlla ñaar ñu ànd di yàlla nag bu fekkee yàlla rek moom moo leen tax a jóg rafet rek moo ci war a nekk kon ñii Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñett a ngi yàlla du nangu seen ñaan yàlla du nangu seen jaamu yàlla te du yëkkati seen seen benn daraja laa yaqbalu laahu lahum salaatuhum wala tarfau lahum illa sama yàlla ne du ma yëkkati si ñoom mu jëm ci asamaan benn rafet mooy ki nga xam ne jaam la boo xam ne dafay daw boroomam mooy sangam ba feeg mu dellu siwaat bu jullee julleem du wér maanaam duñ ko nangul jaamu yàllam ak doom joo xam ne dafay daw way juróom ak soxna soo xam ne dafa merloo boroom këram génn kër boroom këram dem nekk ci bakkanam féeg muy dellu siwaat yàlla du nangu julleem te du yëkkati ay yiwam wal mar'atu saqitu alayhi zawjaha ak jigéen boo xam ne boroom këram daf ko mere xata yarda anhu ba ba koy gërëmee waaye nag sa jër borom kër daf laa mere te mere gi tegut ko ci yàlla waxoon na la ci émission passé ne wa yaxdaba lillah suy mer day mer ngir yàlla mer gi nag bu mu ko teg ci ne da nga ko tere sa bopp rek euh, mu teg ko ci bakkanam doonte nag mere tong sa borom kër gàddaay lalam dafa xaraam te dañ lay bindal bàkkaar malaaka yi dañ lay rëbb loolu Euh, borom kër gi bu mu ci sukkandiku kese na la mere ngir ñàkk julli na la mere ngir ñàkk woor na la mere ngir ñàkk yiw ñàkk nëbbu say cër mm, na la topp na topp la topp ngir yi nga xam ne lislaam da ko tere na la ci mere kon moo tax mën a an yax daba lillah sooy mer dangay mer ngir yàlla sooy gërëm da ngay gërëm ngir yàlla kon nañ xam ne jigéen awra la te awra bi nag góor moom mooy cëru mooy cëru góor mu mel ni bu fekkoon jëmm la jigéen dafa nekk ci biir góor awra boobu nag dañ ko war a tëj waaw lu tax nit ki dagan mu xool awraay boppam nu mu ko neexee noonu la boroom kër moomee soxnaam ba moom léppam ba tax mu war koo sant fu ko neex mu war faa dem foo ko neexul mu war a bàyyi du bu mu fa dem moo tax ñu ne almaratu xawra kon sa xawra ci lenn ci sa xawra ni waree nga nëbbu ko noonu la waree nga nëbb sa soxna kon faxbisuuha la yenente bu wax fi bu yuti na ngeen leen tëj ci néeg yi mooy nañu toog ci kër yi Seydina Ali karamallahu wajhahu waxoon na Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ya Fatima maa xayru lil marati ana lan moo gën ci jigéen mu ne ko waxaala Fatima Fatima ne ko an la tara lir rijal mooy mu ba bañ gis jigéen bañ gis góor ñi kon jigéen léeg-léeg ci benn côté ñu ne xol bi dafa woyof na bañ gis góor ñi looloo gën ci jigéen kon jigéen dafa war a toog euh, li borom bi tabaraka wa taala waxoon ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula mooy bu leen di génn comme ni jaahili yu njëkk yi nañ doon génnee mu bu leen ko génne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne atlaatu ala naar fa akdara fa wajadtu akdara fiha an nisa keroog bi nga xamee ne isra wal mi'raj am na mooy rañaanee nañ ma jibril ñëw yóbbu ma ci asamaane juróom-ñaar ma war a dajeeg sama borom war maa jox julli def na ay visit visite boobu nag visite naa ci safara ma fekk ci la ëpp ca biir safara ida aksaru ahliha an nisa ca foofu rek ma fekk fa la ëpp euh, safara ay jigéen fa qulna liman ya rasulallah moom Fatima mu ne ma wax ko ne ko lu tax jigéen ñooñu nekk ca biir safara yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yokku sir na dañuy baril al laana rëbbu wa yakfur na dañuy weddi al asira al ma wa yuksir na dañuy baril al laanata rëbb wa yakfur na te dañuy weddi seeni borom kër kon li ëpp solo mooy jigéen li bari pour mu dugg aljanna moo gën a yomb waaye nag yenent bi nee na bi muy def isra wal mi'raj la ëpp ca fekk ca biir safara mooy ay jigéen kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi tabaraka wa taala wax na ne ar-rijaalu qawaamuun ala an-nisaa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqtum min amwaalihim فالصالحات الخانتات العافذات للغيب بما عفس الله عليه واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع wadribuhunna fa in ataana lakum fala tabtahu alayhinna sabila aaya boobu tabarakallah foofu la ñu bëgg a taxaw pour gën cee def leeral yenent bi sallallahu wasallam borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquranul karim ne jigéen ñi góor ñi ñoo leen ëpp doole ci li nga xam ne moom la borom bi def muy ngëneel bi ma fadlallahu baaduhum ala baadin ci linga nga xam ne moom la yàlla def muy ngëneel ci ñenn ci ñenn wa bima anfaqtum min amwalikum ak li nga xam ne moom ngeen moom la ñuy ci dépassé seen alal mu tegaat ci ne fa saalihaatu góor ñu jigéen ma fa saalihaatu góor ñu baax jigéen ñu baax ñi taatu ñi nga xam ne jaamukatu yàlla lañ mooy jigéen ñu baax ñi nga xam ne ay jaamukatu yàlla lañ xaafidaatu dañuy wattu seen bopp lil xëy bi ci jamono bi nga xam ne ne seen borom kër nekkuñ ci jamono bi nga xam ne ñu ngi wéet ak seen bopp te yàlla Euh, nekk ak ñoom kenn gisul leen ne dañuy wottu seen bopp mooy jigéen ñu baax ñooñu nga xam ne saalihaatun xaanitaatu xaafidaatu lil xaybi bi ma afisa allahu ci li nga xam ne moom la leen yàlla wattuloo allaati jigéen ñi nga xam ne taxaafuuna dañuy ragal da ngeen di ragal yéen góor ñi susahunna seen ak dem mooy nekk seen liberté fa xedduhunna na ngeen leen tongu mooy tongu gi nag na nekk ci biir néeg wala mu nekk ci biir kër gi bañ a génn ci mbedd mi moo tax mun a laati taxaafun nusuusoona jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg ëppal ci jig jéggi dayoo mooy bëgg nekk ci seen bakkan bañ bañ bañ bañ ngeen yilif leen bëgg bañ topp seen ndigal mun a fa izzuhunna na ngeen leen waar ndax waaraate day jëriñ ndax waar jigéen mooy bàyyiloo ko xel ne xamal ne sëy bi nga nekk jaamu yàlla du ay fo bàyyil xel ne njaboot gi ngay jur bu ëllëgee dañoo war a doon ay kilifa bàyyil xel ne topp rek moo war jigéen waaye topp gi na nekk ci yàlla kon wa izzuhunna na ngeen leen waar wan leen ne julli dafa war ci jigéen woor dafa war ci jigéen topp sa borom kër dafa war ci jigéen wëttu sa bopp dafa war ci jigéen kon yooyu nañ ko bàyyiloo xel jigéen moo tax borom bi ne fa izzuhunna na ngeen leen waar su fekkee nag waar ngeen leen ndax am na ko xam ne soo ko waaree du ko ndax borom bi tabaraka wa taala waxoon na ne xattama allahu ala qulubihim wa ala samaihim ñi nga xam ne yàlla moo kase seeni xol ba duñu gis dëgg wa ala samaihim seeni nopp dootuñ dégg dëgg wa ala absaarihim seeni bët duñ gis dëgg xisawa borom bi ne na ma maa def ci ñoom moo tax mu indi solution waare ne nañ waar bu fekkee waar ga jëriñut mun a wax juruhun na ngeen leen tong tong gi nag moom lañ leen doon wax mooy na ko tong ci biir néeg na ko tong ci biir kër gi waaye ba mu génn ci mbedd mi wadribuhun na bu fekkee romb nga waar ko déggut la nga tong ko am na jigéen boo xam ne boo ko tongoo ci néeg bañ seq moom mu wëññeeku am na jigéen boo xam ne boo gisee nga tong ko ci biir kër gi dana bañ ay nawlem xamal ko dana wëññeeku wa filma fil madaaji la wax wadribuhunna fil madaaji kon tong gi ci biir néeg lay doon ci tëdduwaay ba mooy bañ a ak moom dara kon ci biir néeg la kon wadribuhunna na ngeen leen dóor bu fekkee romb ngeen ñaari état bi waar ngeen leen faalewuñ ngeen tong leen faalewuñ wadribuhunna na ngeen leen dóor dóor gi nag xeera mutabarrija la wax bu doon dóor boo xam ne day damm yax bu mu doon dóor boo xam ne dafay dindi bët bu doon dóor boo xam ne dafay indi ak laago bu mu doon dóor boo xam ne daal dafay gaañ yaram wala muy ëybal yooyu dañ koy bañ na nekk dóor boo xam ne daal xeera mutabarrija mooy bu mu doon dóor boo xam ne daal waaye nag léegi jigéen ñi moom koo ci bàcc bàccaloon yar sa mu ne daf mooy ñenentaan Euh, dafa may maanaam daf may eh, daf may day font kon loolu sax léegi mën naa nekk mooy waar dëkk ci rek bañ a tàyyi mën naa nekk balaa yàgg mu wëññeeku tongu mën naa bañ a yàgg ndax bu fekkee solution amut yow mën nga wàccaat ne xalaat ba xam dana soppeeku moo tax mun wadribuhunna na ngeen leen dóor fa in ataana lakum bu fekkee topp nañ leen nag ci biir ba ngeen leen dóoree wala ngeen waar leen wala ngeen tong leen wëññeeku nañ fala tabtaxu alayhinna sabilan bu leen sàkkuwaat nag beneen yoon di jéem a diisal wala ngeen leen di jéem a doose di jéem a wane ne maako ko yilif bu leen di ut ñoom ci ñoom benn inna allah naka yàlla kaana nekk na aliman di aji aliyan di aji kawe kabiran di ku màgg kon li am solo mooy julit dafa war a bàyyi xel moromam julitam rawatina borom kër ak soxnaam rawatina soxna ak borom këram kon li li ñu leen di fàttali rek mooy eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne ayyuhal mar'a eh, yow yow ndaw si iza ata ila bayti firasika bu fekkee ñëw nga ci sa eh, sa néegu lalu borom kër wala yaati bi lisaan mu ne ñëw ak sa mooy nekk di sonal sa borom kër ci làmmeñ di ko lor ci ay wax Eh, nangam ji dafa jeex nangam ji dafa naan kooku dafay couper appétit ci wàllu nit mooy day tax yëg-yëg bi mu noonu am ci yow day tax mu dëñ moo tax ñu lay moytu ndekuloo loo mën a wax bàyyil ba nga séq yéen ñaar bàyyil waaye nag nga ba nga bëgg séq ak moom balaa ngay séq ak moom nga wax ko saako ko ceeb bi jeex wax ko dépasse bi fi jeex wax ko wax ko wax ko ordonnance bi jox yooyu yëpp nga dajale ko ci boppam ba pare bëgg mu nekk ak yow tranquillement loolu day nekk jafe-jafe loolu itam nañ ko bàyyi xel kon euh, euh, li ëpp solo rek mooy nañ fexe ba balaa ñuy ànd nañ fexe ba kenn ku ci nekk nax moroomam nañ fexe ba kenn ku ci nekk ànd ak moroomam ci tii bi nafs mooy ci teeyu bakkanam waaye wax sa jëkkër luy tax xelam dootu nekkati ci yow wala wax sa soxna luy tax xelam dootu nekkati ci yow ba pare sëy bëgg a nekk seen diggante loolu day jur ay conséquences ci yéen ñaar ci seen wér-gu-yaram day jur conséquences seen njaboot kon loolu itam lu jar a bàyyi xel la kon ñun ñëpp nañ bàyyiwaat xel ne sëy jaamu yàlla la te ñaar ñuy jaamu yàlla kenn ku ci nekk rek dafa war rafetal jaamu yàllaam te rafetal sa jaamu yàlla nag mooy wax ji nga xam ne moom ngay wax mu jëm ci sa borom kër na nga ko segg wax ji nga xam ne moom ngay wax mu jëm sa borom kër na nga ko yar ndax wax dañ ko yar li nga xam ne moom ngay lekk moom la war a lekk nanga nga fexe ba toppatoo ko ba bu demee ci moom dana yëg ne kii ma jox lekk gi du sama rak kii ma jox lekk gi du sama mag kii ma jox lekk gi du jàmbur kii ma jox lekk gi dafa nekk kii ma bëgg dafa nekk koo xam ne mooy ki nga xam ne moom moom mooy Eh, mooy moomay may bég bégal ci guddi ak ci bëccëg moo may bégal ci jamono bu ñu nekk kooku nag maanaam taxawaay dëgg lay laaj mooy jigéen ji war naa sonn ci lépp lu muy def pour mu jëm ci borom këram rek war na cee sonn ngir bu yeggee ci moom mu bég waaye léeg-léeg na nga defal nit ki teraanga du yëg sax ne maa ngi defal nit nit kooku itam du yëg sax ne ñu ngi may defal teraanga te loolu bokkut ci bokkut ci àdduna lii teraanga mooy nit ki bu la defalee teraanga nga yëg ne defal na ma teraanga te loolu nag mu ngi gën a neex si ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy sëy mu gën a neex ci ñaar ñi nga xam ne ñooy ànd loolu nag ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel bu leen di yëkkati seen kàddu yéen jigéen ñi eh, bu leen yëkkati seen kàddu seen kanam borom kër mooy jigéen bu fekkee dafay wax borom këram di wax loolu du teggiin teggiin mooy expliquer mën naa am mooy sa jëkkër di wax nga bugg ko expliquer mu comprendre waaye nag na fekk mu nekk borom kër ngoo xam ne dina mën a comprendre ne da ko expliquer su fekkee mën ko comprendre yow mi nga xam ne yaay yaay jigéen nga fexe ba muus ba bàyyi ko ba dal nga wax moom ci teggiin woon ko ne ko ah maa ngi doon wax ak yow da xam naa mënuloo mën a dégg ndax ñaari wax bu ñu rombante Eh, day am doole ba kenn dootul mën a bàyyi xel moromam moo taxoon nag ma déglu woon la jox la cër nga wax ba pare ma déglu la waaye bëgg naa nga déglu ma nag ma wax ak yow comme ni ma déglu woon nga wax ak man bu ko defee ñun ñaar eh, ñu mën a trouver solution mooy jafe-jafe bi nga jàpp yow sa xol man jàpp ma ne dara la dama gis ne dañoo réeroo rek te réeroo sax duhut ñun ñaar ñoo réeroo mooy man maa réeroo ak yow wàcce sa bopp sa kanam borom kër dana tax moom itam mu déglu la ci ni nga laajtaay dotaay waaye danga may danga may déglu comme ni ma la dégloo woon du respect donte nag danga ko déglu woon waaye sa déglu ko gi yow mooy dangaa bëgg bu pare mu déglu la loolu na mën nga ko wax ci teggiin ndax loolu ñaar ñu nekk ci jafe la borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne in xiftumu shiqaaqa baynahuma fa baxasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaha baynahuma yuwafiqahumullah mu ne ñaar muy ñaar ñuy dencante bu fekkee dañu am réeroo seen diggante ñoom ñaar ñu waxtaan jëkkër ji waar na munta am bunt ci moom mu tong munta am bunt ci moom mu dóor dóor yi ba mu nekk dóor yu lore munta am bunt ci moom mu ne nañ oo ñaari néeg yi nga xam ne ñoo séq néeg bi muy mbokki ku góor ki ak mbokki ku jigéen ki ñoom ñëpp ñu bokk dajee ci barab waxtaan trouver solution ngir ñu mën xam fan la ñuy jaar ba jàmm am moo tax mu ne fa baasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ahlihi mbokk ku jigéen ku góor ki ahliha mbokk ku jigéen ki ngir lan in yurida islaaha baynahuma bu fekkee jóg nañ pour islaahal mooy yéwénal diggante ñaar ñooñu yuwaffiqahumullah insha allah yàlla dina def ñu dëppoo loolu nag manta am lu dut ñaar ñi dañoo woote kenn ku ci nekk ci sa parent loolu nag léegi amatul ci sëy damay am jafe-jafe ak soxna si rek ñu am problème problème bi toll foo xam ne ndaw si bu bagaasam dem wala man ma paqueté ay bagaasam sànni ndaw si génn dem ku góor kam ku jigéen ki mbokkam yaa nga toog di mer naan lu tax mu fase ko wala lu tax mu mer ñëw lu tax nangam toog di xaar ay jafe-jafe ku góor ki itam mbokkam yaa ngi taxaw naan daf ndaw si dafa reew wala ndaw si dafa yaradeku te xamuñu ne ñaar ñu ànd di jaamu yàlla jaamu yàlla dafa métti jaamu yàlla yombul jaamu yàlla ay jafe-jafe du ci ñàkk jaamu yàlla ay métit du ci ñàkk comme nag ay métit ak ay jafe-jafe du ñàkk ci biir jaamu yàlla gi war nañu ñun ñëpp ñu ànd ak suñu sago mooy kenn ci famille bi na am rafet xel mu dee famille ku jigéen ki la kenn mën naa jóg ñëw ci jëkkër ji ne waa yow bi sa soxna demee ba tey ñëwuloo sax ci kër gi pour waxtaan si ñun ñu ngi toog di la déglu bu fekkoon ne ku meer la dana féexal ne ah maa ngi jéggalu damaa yaakaaroon ne rek ndaw si dafa ñëw yéen ñëpp ñu naan meer moo tax man itam ma toog rek ngir xel mu gàtt waaye maa ngi tuub danaa fa ñëw loolu kan moo ko def mooy mbokk ku jigéen ki léeg-léeg itam mbokk ku ci góor ki danañ toog ndaw si dem kenn jógee fi kenn du ko yëg mu dem ca kër ga na ndaw si de ku ko gën ca kër ga amut waaye seytaane moo am ci jëkkër te jëkkër ji dem ku ko bëgg la seytaane moo am seen diggante rek ñun ñëpp nañ teg lépp ci suuf te xam ne jëkkëram sax na fi ñëw ndax jigéen bu meree jëkkëram moo a ñëw te jëkkër ji sax yëgul ko mu ñëwaat ba ñëw ñu féexal mu ñëw ne soxna si mu ñëw ne borom kër gi demal sa soxna sa féex na dafa meroon rek te yow itam da ngaa waaye boo àggee na ko neexal na waxtaan ak way juróom ci ay teggiin eh, man daal dem naa fa waaye gis naa ne ñooñu ñu la bëgg lañ ba tey te itam ñu la jox cër lañ fexeel ba dem nga delloo leen cër ba fexeel ba dem nga wane leen respect ba fexeel ba dem nga delluwaat leen teggiin nga kon loolu dana tax moo tax ñu bëgg ñaari fam yëpp kenn ku ci nekk jóg taxaw taxawaayam te mënuñoo taxaw ñoom ñaari famille yi lu dut dañoo toog waxtaan li ñuy wax rek mooy lu geer rëy rëy rëy ci waxtaan lay mujj sëy nag mooy mbir mi nga xam ne moo gën a rëy war naa jar waxtaan lu bare bare ba léegi na dafa gàtt lool ndaw si day mer rek ñu ne jeex na jeex na papaam ne jeex na jeex na ku góor kiitam itam dootu ñemeete dem famille dootu ñemeete ndax nax nañ papa ja daal lu mu wax dootu ko baax papa ja nee jeex na jeex na wala yaay ja na jeex na jeex na wala ndaw si nee na jeex na nañ topp rek waxtaan ndax nit ki heure bu nelawee dana am leen doole ko ci moom benn lu bon lay doon seytaane da koy gën a am may may doole mooy gën a bañ wala benn xelam day gën a ñëw ci moom mu wëññeekuwaat waaye léeg-léeg jigéen dana taaxaloo ko borom këram sax bëgg a delluwaat ci kër ga mu nekk jafe-jafe lu koy waral mooy temps bu gudd lañ amut mooy temps bu gàtt lañ am ndaw sa nekkaat ci leneen ku góor ki itam nekkaat ci leneen te loolu bokkul ci sëy li ëpp solo mooy ñun ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dafa war a may chance moroomam mooy bu ñëwee pour waxtaan defaroo nañ fexe ba yéen ñëpp kenn ku ci nekk na wàccee e, sago na waxee ci sago ñi nga xam ne ñoo ñëw itam pour defar bu kenn gaaw a mer bu kenn gaaw a gis boppam ñoom ñëpp kenn ku si nekk itam na ànd ak sagoom na ànd ak xelam pour lan ñu xam ne li ñuy defar jaamu yàlla la ñaar ñu am problème nga fexe wax bañ déggoo ba mën a nekkaat bi nekk kenn ku ci nekk amaat mbégte ci moromam yow mi nga xam ne yaa ci doon wax yow mi nga xam ne yaa ci doon dox tiyaabo ji yem noonu amul dara lu tolloog moom kon loolu ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel te xam ne sëy dafa nekk lu diis warta yomb rek pour ñu yàqee ko noonu moo tax borom bi ne fa baasu xakaman min ahli wa xakaman min ahliha nañ yebal ci mbokk ku góor ki yebal ci mbokk ku jigéen ki ñu dee ñu dajee ñoom ñëpp toog waxtaan kon solution dana am incha allah <laughs> ñun ñëpp nañ waat xel ne lu jëm ci wàllu sëy buñ ko yàkkamtee léegi nag mën nañu yàkkamtee takk waaye takk sax mën nañ ko bañ a yàkkamtee mooy nañ fexe ba ñoom ñaar kenn ku ci nekk ñu xam taxawaayam lan mooy taxawaayam ci néegu sëy bi bu ñemee ba xam ko rek buñ xasee ba fas sëy ba ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dana am teggin ci moromam ñoom ñaar ku ci dina ndaw si ci mbedd mi ndaw si may may boppam ci këram ci mbedd mi bu jafe amee li borom bi doon wax naan nañ oo góor ki oo mbokk jigéen ñu bokk toog loolu du yomb ndax ñoom ñaar fañ dajee la kenn ku ci nekk dafa am kilifa ak boppam kenn ku ci nekk dafa nekk di kilifa ak boppam mooy tax kon bu jafe-jafe amee kenn ku ne kenn si ñoom du am kilifa kon bu leen di yëkkati seen kàddu seen këram borom kër ngir lan borom kër mooy sa kilifa mooy ki nga xam ne mooy sonn pour yow mooy ki nga xam ne mooy sonn pour njaboot gi kon ku góor itam bu mu nekk di maltraité jigéen def ne comme jaamam la loolu tam gënut ndax góor dafa war a am yërmande ci jigéen jigéen dafa war a bëgg borom këram ñoom ñaar ñëpp ñu ànd jaamu yàlla te jaamu yàlla nag rafetal rek moo ci tege ñun ñëpp nañ waat xel loolu te xam ne taxaw ci néegub sey mooy taxaw ci jaamu yàlla bi gën a foor eh, ndax bàyyi bàyyilowaat xel nit ñi ne eh, fi njaboot di juddoo fu lu lu la mooy lu foor la lu yéeme la njaboot googu nag comme moo war a taxawal société war a doon dara ëllëg war a jumaa wala mu war a dëkk walla mu war a daara wala mu war a nekk kuy yare kuy defare kooku nag ay waajuram dañ ko war a préparer dañ ko war a xormaal dañ ko war a waajal balaa muy ñëw kon ñun ñëpp nañ bàyyi war xel ne ku ci nekk dafa am àq sa morom kenn ku ci nekk na fexe taxaw ci àq boobu ba àq bi ci moromam du manqué mukk incha allah ñun ñëpp nañ xam ne soxna Aïcha mm, soxna Aïchatu di soxnaay sang bi Seydina Muhammad jigéen la woon joo xam ne yenente bi ba mu fi jógee sax daf ñoo bàyyiloo xel soxna soosu ne danaa leen bàyyi ñaari mbir mooy alquran ak sunna waaye dinaa leen bàyyi itam soxna si nga xam ne mooy soxna su ndaw si di soxna Aïcha danaa leen ko bàyyee ngeen laaj ko seen genn wàllu diina ngir lan jege gi mu jege woon borom këram kon jigéen dafay jege borom këram góor itam dafay jege soxnaam ki nga xam ne buñ ko joxee nga mer yow mi nga xam ne yaa ko war a jox del ko jox ki nga xam ne bu ñu waxee moom nga mer yow mi jigéen te war a wax ak moom yaa war a wax ak moom bu fekkee sa boroom kër ku wax ak moom nga mer yow yaa war di ko di waxtaan ak moom bu fekkee sa soxna ku ko jox nga mer yow mi nga xam ne yaa ko war a jox yow yaa ko dem yow yow mi nga xam ne yaay borom këram da nga ko war a jox kon ñaar ñooñu ki nga xam ne ku kaf ak moom nga mer yow yaa war di kaf ak moom ñun nañ bàyyi xel ñett yooyu ki nga war a jox jox ko ki nga war a waxat waxal ak moom ki nga war a kafat na nga kaf ak moom ki nga war a fool fool ak moom mooy sa borom kër mooy sa soxna ki nga war a jox mooy sa soxna ki nga war a jox mooy sa borom kër joxante la kon ñaar ñëpp kenn ku ci dafa am lu muy jox moromam ñaar ñooñu nag ku ci nekk bu manquélee li mu waroon a jox moromam rek dana feeñ ci ne bu sëy bi te loolu dafay naqari sëy da gis ñaar ñoo xam ne dañuy tongante Yonent bi dafa waxoon ne du dagan ci jullit laa yaxillu li muslimin an yahjura aqaahu fawsa fawqa salaasa ayaam du dagan ci jullit muy tongu mbokkam lu paase ñetti fan mbokk nag lañ wax rawatina nag jëkkër ak jabar ñu nekk ci biir kër ñaari jullit lañ bu ñu bu ñu jàpp rek ne jëkkër ak jabar lañ wax rek déedéet ñaari jullit ñoo nekk ci kër di sëy ba pare àq jëkkër ak jabar dooga ñëw ci ñoom ñaari jullit yooyu nag moom la yonent bi li muslimin la waxoon Eh, du dagan ci jullit muy tong mbokkam lu man ñetti fan sa soxna bu fekkee da naa a tongu lu man ñetti fan moom war naa wëññeeku wan borom wan la yow mi borom këram ne la damaa juumoon rek wala li ma waxoon dama jàppoon ne dafa jub na fekk ci erreur la maa ngi koy tuub wala ku jigéen ku góor ki na am ak woyaf wëññeeku ko ah man de dama juum ba may wax ak yow ci nangam de dama jàppoon ne rek la ma doon wax dara nekku ci waaye ndax gis naa ne dafa indi tension sunu suñu diggante mooy di gis naa dafa indi naxar sa xol loolu nag buum eh, la bul ko def muy dara maa ngi koy jéggalu léeg-léeg jigéen ji dana taxawaat wàññeekuwaat na jëkkër ji man waruloo maa jéggalu man maa war a jéggalu déedéet ñaar ñëpp dañoo war a jéggalu wante ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk jaamab yàlla la ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ànd di jaamu yàlla ndax tooñante lañ wax koo tooñ na da nga ko war a baalu bu fekkee ku góor ki moo war tooñ na baalu waaye nit ñi dañuy juum moo xam sa papa la wala muy sa yaay dañ la wax ne yow warul la baalu yow moom moo la war a baalu te yow yaa ko tooñ ki nga tooñ nag yaa ko war a baalu kon nañ bàyyi waat xel loolu jigéen bu góor gëm ne am naa doole ju yem ni ne bu ma ko tooñee sax moom moo war a tuubal ma waaw naam day neexal sëy mooy góor mën naa tooñ borom jigéen sax jigéen di ñëwaat wan ko ne ko man sa njaboot laa man maay sa alal man maay ki nga xam ne maa la war a tarbiyew man maay ki nga maa war a wàcce sama bopp sa kanam kon loolu nag dafay neexal rek ndax bu jigéen defal la lu borom këram borom këram lu mu am dana ko ko jox bu jigéen defal la borom këram lu mu xam dana ko ko wax bu jigéen defal la borom këram dana du dëñ mukk di feeñal ci moom yërmande ci moom du dëñ mukk di feeñal waaye nag sa jëkkër wax nga fas yéene koo ëpp kàddu fas yéene ëpp ay ay ay ay ay ñaaw-ñaaw yu jëm ci moom loolu rafetalu ñaar ñi nga xam ne ñooy ànd nañ bàyyi wante war xel jigéen bu fekkee mënalu loo ko dara sa kàddu mën naa neex ci moom sa kàddu mën naa woyof ci moom waaye nag jigéen boo xam ne amul mënul loo ko dara doo ko defal dara ba pare boole ko ay dóor ak ay saaga loolu bokkul ci ak jigéen saaga sax moom moo gën a yées ci ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy dencante dóor lislaam tudd na ko waaye xeera mutabarrija la wax mooy dóor yoo xam ne bu mu doon dóor yoo xam ne bu ëllëgee bu yàlla dogaloon seen diggante nekkatul danga ko def ayib boo xam ne dana tax góor dina ko gis du ko xemem naam góor goo xam ne day xool soxna rek dana xool day xool jigéen rek xool ay bëtam mu xool regard bi rek mu neex ko mu ne soxna sii de bu xoolee rek man damay am damay damay am cofeel ci moom wala soxna si bu doxee rek damay am cofeel ci moom wala soxna si bu waxee damay am cofeel ci moom nga fexe nag ba dóor ko wala nga fexe ba yooyu yëpp cër yooyu yëpp nga def ci benn laago ba góor googu nga xam ne waroon naa nekk sansam nga xañ ko sansam ngir li dafa am lu doon gis ci moom tax mu bëgg ko xañ nga ko loolu te loolu bokkut ci eh, yëfu julit tabarakallah di Kibarò network muy seen site internet bi nga xam ne yéen a ngi koy topp fii ci Karang seen mbokk imam Zaynul Abidin di leen ko defal tabarakallah ñu ngi nuyu sunu xarit imam Mbodj muy Aliou Mbodj ak sunu xarit imam Baba eh, imam Babacar tabarakallah fii ci Karang imam Thierno Mbaye imam eh, imam Adi Cissé tabarakallah imam Keba Niang imam Khalifa Touré tabarakallah fii ci kar Kasumay Eh, imam Aliou Mbodj tabarakallah ñu ngi koy ziara di nuyu pamaane mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi di Kibaru Network di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp ci site eh, di Kibaru Network bi ci YouTube bi macha allah ak ci Facebook beeg lépp rek incha allah di wax rek eh, ñu ngi amaan mbégte di ñaan tawfiq di ñaan taysir néegub sëy lañ doon waxtaanee tey ci ba bi incha allah te di leen bàyyi lu xel sëy jaamu yàlla la di leen bàyyiluwaat xel sëy ne lu ci bànneex nekk-nekk mooy bànneex boo xam ne yéen ñaar kenn ku ci nekk jaxasoo am ak moromam ba am yëg-yëg ci moromam ñu pare bindal leen lu mat ñeent fukki yiw loolu amul jaamu yàlla gu tolloo loolu jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiu ahsanahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu